mbokki internetu bpactu point com ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal te fas yéene ñëwaat ak yéen ci seen xibaaru analyse comme ni ñuy faral di ci ànd ak yéen su nekk wa tax na nag li gën a fës tey ci réew mi bokk na ba tey ci mariage yi nga xamante ni célébrité yu ci bari dañuy faral di fësal ñaata lañ leen jox mu nekk seen ndort maanaam daal seen may gu njëkk ñi nag dañuy fësal naan ay million la ay oto am ñi fësal sax ay kayitu kër mbir moomee nag nar a continuer lool nag seen xel dafa tourné wu ni euh, par force dañoo war a am ay millions yu takkoo takkoo laataa ñuy euh, takk jabar wala jigéen ñi sax def seen bopp góor gu yorul lekk warul mën a ñëw ñaan si leen ki ubbi baal bi nag mën nañ ñi ki nii di sumulu bàcc li euh, ci la bokk ginnaaw ba ko Abdoulaye Diouf Xaas doon takk daal di koy terele millions yu bëree bëri ak oto mu daal di koy fësal bés boobee mariage bi nag foo sànni marto rek mu daal di takk ñu daal di gisaat beneen actrice bu nekkoon ca diwaan Pikine moom nag dafa ni woon 30 millions franc CFA lañ ko may coow li daal di eh, joole ci askan bi ba tax na bépp célébrité bu ñu takk rek la ngay ñëkk fësal moom moo di ay millions ay chaîne en or ay oto ak ay eh, këyitu eh, kër ak yeneen ak yeneen yu ni mel li waral nag coow li bari jamono ji mooy mariage yu Billy ak Marichou gis nañ ni Marichou xaritam boobee di Big Mama nekkoon ci série bu Mœurs fa demoon bés bi nga xamante ni ci lañ doon teral Marichou mu daal di filmer lu toll ci 7 de francs xamante ni moo di euh, parure en or ñu gis nag euh, Marichou nekk ca lool kontaan ca lool ñu ci bari nag daal di nañ koy euh, weddi ni Big Mama dafa doon jéemoo sos rek waaye la mu ne moom lañ jox Marichou loolu nekkul dëgg ka ca gën a fës bokk na ci Adamo ndax nee na mën na enquête am ba xam ni daal takk yooyee nekk woon ay takk million ñoom ñi nga xamante ni yàgg nañoo gis million yàgg tee million képp ku seen million sax di nga ko xam waaye ay takk yoo xamante ni dafa yof toll nga ni di ay ci tamit la ca gën a yéeme kii nii euh, di euh, Billy rek moroomu acteur am la comme ni Marichou nekkee actrice donc euh, ñëpp xam nañu daal maison de production yi fay ñu alal yoo xamante ni dafa ni gàññi ndax Marème Diall daal di nay fësal secret ba fa nekk ndax da ngay tourner ay mois yu bari bari ñu lay fayee trois cent mille ak i quatre cent mille donc kooku fan la a jëlee rek juróom-ñaari millions yu mu daal di tëralee nekk ñeneen ñi ne déeta waay ñu ni Marichou bés boobee sax way juróom bu jigéen àndul woon ci mariage bi ba tax na tegul woon tànkam ca diwaan diwaanu Thiès looloo waral sax mbokkam ya nekk ca Thiès daal di jël boobee mariage a toppkaa bi faral di am ca diwaanu Feeling Dakar kii nii di Ndeye Gueye di ko animé ak yeneen animateur yu nekk ci kaw ah, plateau boobee doon waxtaane rek wàllum dot bi faral di am ci réewum Sénégal ak célébrité yi jamono ji ah, seen bakkan bi ñu jël lekk daal di koy ah, teg ni ñi leen di takk ñëpp dañ leen di teral ci la rek Ndeye Gueye yëkkati ay kàddoom ni ki ñu tooñ nag du kenn ku dul Mbathio Ndiaye Mbathio Ndiaye ndaxte dafa fësaloon millions ni moom la ko loolu nag nekkoon dëggantaan Ndiaye ndax moom Ndeye Gueye amoon na ci lu ko leer lool ndax xamoon na ni dëggantaan Ndiaye li Mathio Ndiaye fësaloon loolu la ko Baye Niass daal di mbay sumbulu bàcc li tamit bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo tooñ jeunesse bi ndax la mu fësaloon bésu xewam ak li mu ni moom la ko Abdoulaye Diop xaas mbay loolu yëpp nekk na loo xamante ni dëgg la inventé wu ci dara waaye ñu ci topp ñëpp dañuy faral di inventé ay dot yoo xamante ni gisuñu ko dégguñu ko wala tegguñu ko seen bët comme ni ko rek kii nii di Pendo waxee Pendo tamit tamit ca plateau bu kàkkatar dafa ni ñu ci bari ñoo ngi déclaré ay millions seen xew ni moom lañ leen may alors que boo demee ci seen xew yi pour nga lekk ba suur wala nga naan ba mandi sax day nekk lu jafe lool wala boo fa jugee dangay daal jàdd ci boutique rek wuti biscuit ak meew boo mën a euh, feesalee sa biir donc képp koo xamante ni daal euh, dangay nax sa bopp ci wàllum date boobee rek jàppal ni non seulement sa bopp nga ko def waaye nag yaa ngi jéem a euh, la ndax ba àdduna doon naa baax juróomi junni wala ñu di ko doon takk ci fukki junni te sëy yooya ba suñu doon yàlla tey ji suñu borom daal dina ciy def barke suñu wayjur na rek moom mooy gën a gaaw a tas wala moom mooy ëpp coow ba tax na daal nañ xolaat bu baax a baax dëgg la nag am na ñoo xamante ni yéene leen di leen may ay million yoo xamante ni takku na lool waaye nañ ci boole ak ngor te ngor googee du lenn lu dul lekk ni pat ak moom ndax non seulement bët baaxul cat baaxul waaye ñu xalaat ndaw yi nekk suñu ginnaaw seen loxo jotul seen ginnaaw ñu bëgga a euh, jot li nga xamante ni attanuñ ko wala mënuñu ko loolu nag célébrité yi ñoo leen mën a jàppale ci loolee ndax ñoom la ñoom la ñuy faral euh, di leen suivre euh, saa su nekk ba tax na nag mbokk yi comme ni ngeen ko gisee li lañ leen indiloo na ci seen xibaaru analyse jaajëfal leen jox leen dig daje ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf mbokk yi ba beneen yoon